suis basuma mbare sukkanonko abite iba famale dia nafio nafio koy d'abord Senko face à un grand défi demain c'est le 1er mai la fois dernière j'étais sur Ilimandam... Et je serai sur des éclaircissements. éclaircissement yu l'air. yu sénégalais yi mosul dégg ndax liberté 5 liberté 6 liberté 4 jëppal amul fu mu recevoirul appel nombre d'appels, appel 112 appels, 104 SMS depuis que ma waxee si Ilimane de la fête du 1er mai Nous sommes c'est la fête du travail. c'est la fête du travail C'est la fête bi am fête bi ci la révolution de 1889 c'est la révolution française première fête bi

oui gestion beaucoup de manipulé état bi la lay xaar pour wàññi état bi lan lay xaar pour wàññi voilà léegi nag fa li ñuy ñëw tey état semaine bii passé convoqué na entrepreneur yëpp te woowul ñëpp de Sonko du Sonko est l'homme le plus renseigné au Sénégal, Ousmane Sonko. C'est l'homme le plus renseigné au Sénégal. Je précise, je signe, je perds. Sonko Wona na Dougal fa G70 G75 G78 G80 ñoom ñoo fa nekkoon. ndax kenn koo xam ne daan nañ ko dégg si ñoom Marème fay Sall muy Iliman Lam Iliman Lam sama grandeur sama dignité may ma yenn yi te xeex day juste xeex day légal xeex day juste day légal si Cap Liberté liberté 6 respecté na len barke Serigne Touba respecté na len te bu len fakk ne dañuy jiital Sonko diko ko wala jiital Sonko nan ko diw nga war recevoir diw nga war recevoir déedéet ci vous respecte trop déedéet liberté 6 ñima fo wo ñep ñëpp foog won xamnañu woon Lam à ce point je ne savais pas xaw ko woon ndax man j'ai pas cherché à connaître man noonu laa mel man Sénégal ku nekku ci biir état je ne cherche pas à te connaître te Ousmane Sonko ñi mu recevoir amul kenn ku ci yoreel Sénégal bor ndax paa amuñu xaalis boo xam ne dañuy yoreel Sénégal impôt paa yooyu ñu resevoir ils n'ont rien du tout ndax xam nga ne paa yooyu nga recevoir ci xale yi ci jeunes yi la ñuy basé wu ci jeunes yi la ñuy basé wu. jënd ñëw jaayaat état jël seen bénéfice te pas yooyu en grosso modo ay courtier lañ ils n'ont plus le choix d'être là te suba c'est le premier mai te ñoom ñooy patronat bi maanaam ñoom li ñuy employé ci employeur kenn employé ko ñu jël liste jox ma jël dossier bu mat sëkk jox ma ndekete Mollah Morgun defoon na même live bi en 2022 mille vingt deux ci Ilimane Lam en 2022 porte de cliché sama équipe fi may nekkal booy yi may àndal ñun ñuy dirigeant yi équipe yi mu ngi nii fédération française bu football damaa bokk ndax maa ngi sama licence yore équipe dem fa waxtaan ak collègue yëpp Ousmane Sonko doful bay jël koo xam ne dafa taq répp répp répp ci nguur gële bàyyi la si wetam doful ndekete Ousmane Sonko c'est l'homme le plus renseigné du Sénégal Ousmane Sonko di ngeen gis temps réew mi ay sabotage ak yëpp xam nga lan moo tax dafa am ñu mu invité am ñeneen ñu mu bàyyi ci ginnaaw diw baax na ñu ne mbokk yaa ko wax pour la première fois man mu dal ma ma wax si ñit communauté entière si Cap mel ni ñëpp déggu leen li ma leen wax 112 appels 504 SMS dama ko bind 112 appels 504 SMS ba sama kilifa gu mag woo ma ne ma est xam nga léegi mën na ko déedéet mu ne ma Iliman Lam ma ne ko maa bañ copain Amadou Sall copain lii copain lii copain lii copain lii wax ba géex mu ne ma ban dossier lañ la jox ma ne ko tel dossier mu ne ma dossier boobu 2022 Mollah Morgun waxoon na ci ci live même bi lañ la répertorié mais c'est pas le nom de Iliman Lam moo ci nekk Thierno Bandam moo ci nekk ma ne ko non maa bañ je regrette mu jox ma même dossier bi ma gis nañu enlever tuur yi dugal tuur yële yéen entrepreneur yi dama fagoon ne di ngeen dugg ci xeex bu rafet ci xeex bu set ndekete yéen ak mbër yeeg artistes yi booy fépp a yem Sénégal ñëppay xeex ñëppay xonwante Sénégal kenn bëggatul kenn Ousmane Sonko fag nga yeewu nag xam ni ngay teg sa wet amna ñoo xam dañu sax ci palais bi ba foog na ñoom mënatuñu jóge palais te c'est pas normal dëkk bi y a assez de jeunes qui peuvent bosser sincèrement y a beaucoup de jeunes qui peuvent bosser Ousmane Sonko y a assez de jeunes qui peuvent travailler Ousmane Sonko mak ñi doyna na. Kër Moussa Fall woo jox ma dossier yo xamné jox ma dossier yo xamné Iliman Lam gauche Iliman Lam droite Iliman Lam ba paré jékki-jékki né ma noo moom sax. moom ak Ousmane Sonko yag nañu and man leen c'est pas vrai c'est pas vrai wax joju bu leen ko sax jëmele kaw mais secrétaire général du palais ki Ousmane Sonko fal nii waa palais bi ñu ngi koy jigné moom mo doon togu Ousmane Sonko moom mo doon génnee renseignement yépp yi daan fuuté pour vous dire la vérité Moussa Fall ñu nekkon ci collimateur ñi ñu fagoon ay tóob ñu tëj booy gendarme yëpp boole yenn gendarmi yi foog na ñooy ay tóob moment bii nii Moussa Fall ci boppam mu ngi doog a xam ne non non non du ñoo doon génnee information yi ce n'était pas le gendarme un gendarme ne fera jamais ça jamais de la vie ça man nag yéen troisième age boleh leen may duggal ci combat man man ku may dugal combat man ku may dugal si combat da ngay tek sama loxo lu leer. vidéo bobu ngeen ma yonne Boss Day Negri tok ak pa bobu soloon kap bu weex bi ensemble bu weex bi tout blanc la tek or yek yor khalis du ko kay Iliman Lam samay autorité yonne len ma kan moy vidéo Iliman Lam gis na vidéo ini nit kili kilit kiliti kilisi nañ ma fekk ci wax nañ ma lan mo xew kilisi ñew nañ ma fekk ci xamna lan mo xew ci suuf xam naa yu bëri yoo yoo xam ne Sénégal mënuñu ko xam Ousmane Sonko du recevoir un imbécile au palais il ne le fera pas té piège buñ ma piégé dañ mëna ne yow da nga bëgg dund wañé ko da nga bëgg da nga jappal Ousmane Sonko man leen waaw ñu ne ma légui le pourquoi Ousmane Sonko mënul wàññi dund. Bassirou Diomaye Faye mënul wàññi dund ndekete commerçant yi mag yi grossistes yi ñiy fay impôt ndekete ñooñu ñoo mun à partir de ñoom bato yu ñuy indi ñu dugal ko jaay ko état parce que état du jënd comptant compte état da koy jënd di di ko fay transport tranche tandis que ñii ñu ngi ak seen milliard dañuy indi bateau dugal ko Ousmane Sonko génne taxe douanière yi keroog ñoom bi ñu jógee palais dem nañu réunion ji avec la douane ay service d'hygiène nag police ak gendarmerie ñu ngi def réunion yi partout pour xam camions yi bu ñuy distribuer ceeb yi naka lañ leen koy wàññee essence ñu koy wàññee ak loolu yëpp état ndeke état mun a wàññi dund mënut a nekk état day proposé pour wàññi dund woo investisseur yi maanaam ñoom ilman laam yi ak beneen gayen bu ñu ma jox tuuram ne ma ñooñu rek ñoo dul boru état fépp lay laay espionné nit maa ngi document yoo xam ne ci impôt wu chez ñu ne ilman laam moo ko jënd Cheikh katia Iliman Lam moko ko jënd xam ngeen loolu man mu ngi ni maa ko dogo xam Cheikh katia xawma boîte la xawma bar xawma restaurant ma gis charge yi ñi tek ñun doomu Sénégal teguñu ko marocain yi teguñu ko turki teguñu ko français yi ba paré gis ngeen sabotage yi xew délestage yi bari lool ci dëkk bi waaw parce que Ousmane Sonko bi mi wote dafa wo ñi wàññi dund gi fàtte ñiy exploité pétrole bi ak gaz bi même buñ koy exploité ci Macky lu mu def yoon ak Macky Sall li mu def yoon la bien beau mais ñii ñu ngi ci ba noppi léegi comment woo leen waxtaan ak ñoom masla ñoom pour teg sa loxo yow ci sa courant Bassirou Diomaye Faye day nommé 4000 personnes directement yoo xam moom mun na leen signer décret l'état est extrêmement large Vous xëccoontee fii vous fallu. nous dites. courant bi état géré le. dafa am conseille Samuel Sarr mais comme ils ont eu les largesses de l'état Ousmane Sonko bi de de De c'est des sabotages, mais pas des délestages. C'est des sabotages, pas des délestages. pétrole bu ñuy defar ak pétrole bi ñuy defar ak lépp dafa am ñoo xam ne ñoo ko moom léegi ci biir Sénégal ñoo ko moom te loolu état nee état militaire donc, moo mun xëy di nungu naa lii nungu naa lii nungu naa mais état civil mënu ko yàgg naa leen ko wax état civil mënu xëy nungu mënu te nekk lu mu mën woo ñii di saboter délestage Touba ak yëpp gars ay sabotage la quoi dëgg neex yàlla c' est des sabotages Touba bi coupé courant coupé ndox coupé fii coupé fii c' est des sabotages dafa am ñu bàyyeegul si suuf et ce n' est nekk fii naan diw la diw la non non non ce n' est encore le moment gars yi ñu ñoo leen dàq xeex foofu yëg nañu lépp mais xoola ñi ngeen ñuy jox ndekete du ñoo ñooy def yéen yaa yéen yaa ngeen di def ba tey te bàyyeegu leen def te moment nii yaa ngi ni jéem a yàq ñiy toog te yéen yaa ngi ni def ba tey man de dernière solution rek laay ñaan Ousmane Sonko classe Samuel Sarr gi réseau la seen réseau otoraay la dafa gudd dafa yàgg boo demee ñoom si doole non non boo demee ak ñoom si doole mën na jur leneen daa am yoo xam si réew un état démocratique jaloog moo koy réglé calcul moo koy réglé waxtaan moo koy réglé même ñoom bu ñuy bàyyi 60 pour cent pour l' état comme lépp ci largesse état lañ ko amee dugg rey société yi investir société yi jëndaat ko ñëw toog na ñoom ñooy gérer courant ñoo ñuy jaayaat suñuy kilowatt ak nu courant chéré ba facture ndox di dem 50 mille léegi Ziguinchor pour la première fois loolu am mais loolu nag am na ba pare moom mooy xam lan mooy solution bi contrat ya ndax ñoom bul sonn du ñu perte même bu ñuy lay bàyyi lépp milliards yi ngi leen di fay du ñu perte mukk si àdduna tout ça nag reste à voir yi dialogue mooy tax mu arrêté waxtaan kese moo mun arrêté délestage yi lu lu ñu la jox di yoon dama koy jël déedéet wala dama lay génne waaw génnee ma la lay wax mais maa moom sama yëf su ma neexee fay ko doole fajul dara doole départ la doole pour ñu xam yaay kan la doole pour ñu respecté la bo paré nak da ngay waxtaan ba jël li nga soxla pour descos ñepp nga ciow ñu naan littoral beeg xawma fudul littoral beeg xawma fan littoral bi littoral bi dafa am dafa sensible boy littoral bi 2009 la xex bi commencé ñu japp ci ay booy géejawaay tecc ci kasso bi maître eladjif mo avocat du géejawaay bi man lay wax waxuma littoral yëpp parce que li Sonko bind ni arrêté travaux yoy yëpp dafa reuy ba mu ëpp mais man sama littoral géejawaay way moma concerné littoral way bi dafa am lu bëri lu fa xew ño xam dañ leen fa sédd ba 2023 bi ci biir état bi ci biir état bi si ministre yi yi bees yi amna ci si ñoo xam jox nañ leen fa parcelle fofu ci littoral filao yi suñu filao yi 2023 bi té ñun boobu ñu ngi ci xeex bu metti 2023 bi amna ministre yu fa encaissé parcelle té doomu géejawaay yaa ngi fa amuñu fa parcelle légui nak ministre yoy laay ñaan ñoom nañu delloo sen parcelle en premier xamné fofu foofu ñoom waruñu fa dëkk yéen non ministre de la république yeen ñi am parcelle si domaine national bi mooy domaine eaux et forêt bi mooy la bande verte la filao géejawaay yi domaine boobu yëpp littoral boobu yëpp gaa yi ngi koy xeex depuis des ans mais ñi leen ko doon jox dañoo calculer woon ni ñi dañuy gagné te bu ñu gag te bu ñu gagné ñoom foog ñu taxal leen moo tax am na ministre de la république yoo xam am nañu fa terrain seen tour mu ngi fa jot naa fiche terrain ak seen signature ak seen lépp démissionné leen. balaa noon yi di ci jot bu ci noon yi jotee ci ab xam dinañ ko publier si internet bi bazar de gis nga ni mu si jotee nii bay saraxaatu pour ñu bloquer dinaa ci wax pour ñu bloquer jarul document di génn bu si noon jotee da koy exploiter bu si noon jotee da koy exploiter te foog naa ni Ousmane Sonko yow war nga yëg li may wax bu baax te l'homme le plus renseigné au monde waaw waaw sa gars yi bi nga nekkee si kaso bi am nañu profité ci say largesse yëfu nit la walla yëfu purux la wala yëfu suxlumaan la ça ne me regarde pas seen vie la

ne dañuy toj kër yëpp gars yi na waaw ñu ne descos descos mais yéen problème mu Sénégal xam ngeen ne Saaburi la Saaburi Ndiaye l'homme le plus dangereux au Sénégal Saaburi Ndiaye moo ëpp xaalis Sénégal parce que naan na code yi Saaburi njaay borom pot de vin Saaburi Ndiaye borom Madiambal Diagne day nungu sa kër dem ci saa Saaburi Ndiaye mu ñëw assisté Madiambal jaañ mu tabax kër colonel Saaburi Ndiaye devenu milliardaire Mais c'est grave ce que je vous dis. C'est grave. le Frérot, bien, bien. Il est je lis bien le colonel. Colonel Sabouri Colonel Sa Ndiaye. Descoche. Devenu milliardaire. Il Faut que Muntiwo, il envoie ses hommes. bu qui qui au Khalis qui jox pot de vin Ousmane Sonko mën nga yëg lépp mais bu colonel yi moom no mënoo ko yëg parce que loolu suñu cuisine la te comme changé nga chef renseignement nag gars yi dinañ la étaler lépp sur la table jox la contre yi jox la COS yi renseignement saa mu fiable mais contre renseignement bi moo gën a fiable ñiy jaar su suufu agent yi ñoo ñoo gën a fiable seen renseignement jël ko tu vas connaître qui est le Sabri Ndiaye un aéroport bi ñu pour les gendarmes là joxon nañ leen 20 parcelles 20 parcelles yi nu mujjé disparaître mystérieusement disparaître mais mystérieusement dans les falaises de Yoff 20 parcelles yoy la lay laccé Sabri Ndiaye Macky joxoon na militaire invalide yi dix dix hectares dix hectares yi génie militaire ñoom ñoo désherber génnee garab yi ci cinq hectares bu njëkk bi beneen cinq hectares bi militaires yi ñu ngi xaar ba tey de militaires yi désherber nañu génneel leen lépp ba génnee cinq hectares yoo xam ne mën nañ ko viabiliser beneen cinq cinq hectares bi beneen promoteur moo ko gañe Mais vous savez, le promoteur, il y a terrain qui ont 128. Qui 5 hectares, nous avons 128 parcelles. Il avons viré ça pour une journée. Nous avons publié un rapport sur Internet. Il y a des signatures qui sont te signature yoy boy lay metti gis ko xamne batay mu ngi ci ngor gi te loolu day andi jaxaso fu mu toll ni problème bi fa la nek motax Ousmane Sonko fokk nga fep fep fep fep fep fep fep deskos Ousmane Sonko bo fa duggé japp sa bop deskos bo fa duggé japp sa bop xamna lu may wax deskos yenn ni mëno ko yek parce que cuisine extra extra interne la cuisine bo xam ultra interne du moche du guen cuisine la bo xam si ñetti nit la yam man maay ñentelu nit bu koy man maay ñentelu nit bu xam persa bu bu yek ay diilam man 4e personne bu ko xam te mën na ko war pour vous dire Ousmane Sonko kon du ko Ousmane Sonko mu ta nga ko c'est impossible c'est gay Sonko limu yek ñun mënu ñu ko yek man kilifa gi dama wax mu ne ma booy yéen a gën yeewu Sonko ma ne ko waay ñoo ko gën yeewu euh, booy Casamance ma ne ma yaa mun noon def noonu sanday ma ne ko mais père looy wax nii mu ne ma yow tu penses que Sonko va mettre les imbéciles là ci la may limal ñuy dugal ceeb ak diwlin lim lim lim lim lim ma ne ma tu penses que Sonko il est day toog ñu di waxantu wala yéen da ngeen yëg moitié moitié nee na ma li nekk si boppam bu nekkoon sa bopp bii heure yow tëb nga ci métro yi te motax yeen wa sikap Liberté 4 Liberté 5 ma ngi clôturer de man gor yalla la takal sen dom yeen ñep commencé ma wo allo allo bay no bay no bay no bay bàyyi déedéet Liberté 4 Liberté 5 Liberté 1 Thiépeul Kilichi 53 antoine Rouge sama groupe entraîneur bi ma bokk am na ci ñoo xam ne liñ ma wax si Iliman Lam du ma nekk fii sax di ci wax man j'avance parce que koo xam ne milliard am xaalisam amee ko Sénégal j'avance xam nga nit nag koo xamul rek xamoo ko j'avance mais yéen booy si kaap yi eh man du ma ko yàqul Ousmane Sonko du ma ko xeeb Ousmane Sonko du ma jiital Ousmane Sonko naan ko da ngay xool looy def ak da ngay xool looy def lii c'était la surprise mais man pour bonal sénégale xalaatuma bonal un sénégalais déedéet je ne suis pas un homme buy toog fii di dénigrer nit déedéet dénigrer mu nit déedéet dadi ka kañ des fois yow man def naa ba du ma wax ci biiru nit na xaw ma kenn bil de xaw ma kenn moo tax yéen waa Sicap

ngeen yónnee ma vidéo boobu kooku toog ak Adamo paala kooku paala c'est diamétralement opposé ak Elimane Lam paala dinaa ne diw ak diw ak diw yow am nga 71 ans yow am nga 74 ans waaye léegi loolee ni xeexee kii lan la def te mënu leen continuer li ngeen daan def ñëw na ko booy <laughs> lebal mi mu lebal leen ngeen jënd am ci seen bénéfice fay ko coow lu jeex mais pourquoi vous essayez d'effacer la la jeunesse c'est que man. président bu tok deux mandats ñu la démal ben chef syndicat nangul dem dambo jox ñepp ci yam ku def deux mandats buñ ñu la wàccewee nga créer benen syndicat ñepp ci yam avec le respect que je vous dois ken mossu def deux mandats mossul am mbagnik job mu ngi fi depuis kan ñu nan ko suus gars yi ñu loyal tuuti mbagnik job suus Abdou Diouf mbagnik job suus Ablaye Wade mbagnik job suus Macky Sall mais mbagnik job suus baye jeune yi bu bu max yàq sa équipe bi doon lekk kese ay ñoom dijj bu sëg ñooñu déedéet mosu leen d'accord ak équipe bi yónni seen ay nit nag di étouffer internet bi jaru ko li ma leen waxoon démb laay waxaat sama waxu tey wax bu weex bi moom buñ ci duggee rek moo wax leen kan ak kan ay bàyyee bu weex bi te grand Doro Gueye amoo sens maa ngi gis sa benn boy tellement woo <laughs> grand Doro Gueye nii mu ne ko bul ma wax Doro Gueye bul ma wax wax waxu Doro Gueye bul ma parce que moom dama am vidéo moom buñ ko joxee bu weex bi mu mos ko en personne xaalis bi mu fa fay xam naa ko ki ko jox xam naa ko moo tax bu leen ma wax si Doro géey ngir yàlla booy bu leen ma sax woo duma leen décroché kooku ku ma woo ne ma Doro Gueye je te coupe parce que loolu man may bokk ci xeex bu kay génne Sénégal mais yéen tam foog ngeen sérieux tuuti. foog ngeen sérieux tuuti foog ngeen sérieux tuuti gars yi yéen syndicalistes yeeg yéen opérateur économique yeeg yéen ñëpp laa wax opérateur économique nag mënut a jël retraite kooku on est d'accord mais syndicalistes yi ma dem ba soog bi Youssou Ndour woyoon ci Ablaye Wade non père il est temps que nag la jeunesse là fasse ses preuves sincèrement man je suis pour la jeunesse man boog man man moment yi mënatuñ ma fal dara Sénégal si man je suis âgé mais la jeunesse là yéen tam père il est temps que vous ne foog ngeen laal frein doy na doy na lu doy doy na. comme ñeneen ñi nag da ngeen ami géwél ay ñoom Alaaji Mansour Mbaye ak ñoo ñooy seen géwél ça passera pas avec ce nouveau régime fii kuy fay impôt koo xam ne ama woon largesse état état baalu la dara lu Ousmane Sonko recevoir Je na dañ un dossier imposable le Kacha. France fi ba club ba club y fi Iliman Lam il Iliman Lam un y a Sénégal France il la ko amé. il ma wax xam ngeen fédération française de football net à Nanterre y y un carton rouge dañ ma mën 1-0 man nawetaan créé bu ko gagné match bi pas ba bi wax ma soné ndeyam tay jugement bobu la demoon pour génnee sama carton rouge tay jugement bobu la demoon fi Nanterre la fédération nekk si la ma sama collègue yi mais mais Gagne mais Gagne poto est-ce que tu connais l'AM j'ai dit non j'ai pas besoin de le connaître mais biñ mako waxé waxee dama la ne non non non c'est impossible ba ay club fi da ko jënd ba ay club club fi te club bi du temps Macky Sall né temps Abdoulaye Wade la 2003 2004. moo tax yéen waa Sicap on se calme de yàquluma Ousmane Sonko nekkuñu pour critiquer nekkuñu pour juger képp ku kay saaga jëlal say responsabilité saaga ko yaa xam mais ñun dañ fi nekk pour accompagner Ousmane Sonko muy teg pas bu ñu gisee lu ñu xamul woote téléphone yi su suuf kenn décroché wu ñu woote woote kenn décroché wu ñu ñëw live bu ñu live ba pare nag si la ñuy doo ko xam c'est ça l'importance de nos Si leen gisee ça ñu génn toj dara rek c'est parce que woote nañ ba sonn jotuma kenn pour am preuve tangible moo tax nag Kilichi mes jeunes on se la sert. moi je suis un grand monsieur s'il y a erreur je vous dites qu'il y a erreur ces vieux là le vieux qu'ils m'ont donné pour le faire passer de Iliman Lam c'est pas Iliman Lam le vieux là il a des boucles d'or en qui il est tout le temps civilisé là. Et, il est très vieux avec les vidéos que vous m'avez données là. C'est diamétralement opposé. Avec votre président, vous-même vous, l'appelez président. Eux, fille de Fédération Française de Football. Quand elle lance, le man, nous président. Je ne suis pas débat. je que ñoom la man ça ne m'intéresse pas man waa SICAP rek laa doon rassuré que man doomi gor laa te jomm japp deru jom doomu jamur di ci dor di am di am raison te ngeen woo ma ne ma eh ki moy suñu dom est-ce kiñ la jox wol la eh man lañu jox lo xam information te ñima koy jox samay kilifa lañu won ndax enseignant la won ñom dañu nekk ci guerre te man kuma duggal ci guerre damay saga sa nday ndax duma guerre lo kenn kuma kuy guerre sa guerre xola na nga am xaliss pour meuna guerre mais fekk ko xamne yoralul impôt Ousmane Sonko di wote juk woo ay ñitam ñu naan ko noonu ñi nga woo ay dëmm lañ kon ñu kon ñun dañu bëgg ne Sonko dëmm lañ bu Sonko nar a nekk dëmm ñu ñëpp ay dëmm lañ bu Sonko amee échec ñun ñëpp am nday échec bu leen xaar ba affaire yi takkar naa si ku nekk naan noo waxoon naa ko waxuñu ko ñun ñëpp ñoo faral Ousmane Sonko te dañuy dem ba fin ñi mu invité wul saraxu lañ ci mën ak ñaan pour mën a régler suñu compte yi ñiy def sabotage nag laay mujjee ñaan gars yi grand Samuel jàpp si jàpp si c'est pas parce que boy wow boy déedéet ki xoola boy yi dañuy job soxlaa ñu woo kenn di la saraxu quoi dans tes compétences va allez voir avoir les documents après vous allez voir comment vous allez gérer mais ku nek tok sa côté di xiru couper courant Touba yi fii couper ndox yi andi délestage short, di couper matin midi soir yónnee la facture ndox ay 55000 non non non hey grand revenez à la raison bu boy employé la matière

revenez à la raison pour accident yi moom du ma ci wax c' est des faits naturels El Malick Ndiaye il va gérer ça il connaît le circuit basuma basuma mbare bugguma publier nag benn document mais bu wax naree bëri dossier impôt képp kuy opérateur économique Sénégal ma andi leen ñaata lañu yorel impôt indileen leen ñan ak ñan ñoo yorelul impôt Sénégal dafa am ñoo xam ne yoreluñu impôt dara kooku moom dama koy seede léegi balaa ñu may tëb ku ci mel ne Bougane Gueye Dany impôt da ko xoj ba day fay am na ay ngandam chaîne yoo xam ne suñu fay impôt nay leer opérateur économique yi nag ñi nga xam ne amaluñ impôt dara Ousmane Sonko a osé les recevoir mais ñi amal impôt Sonko recevoiru leen kon nay leer de Sicap Liberté 5 Liberté 6 on s'est compris jeune je ne m'acharne jamais sur quelqu'un jamais de la vie man affaire doomu adama yi <laughs> ça ne m'intéresse pas je ne m'acharne jamais xam nga luma ñor Casa di man sa comment ñun Casamance mas, Diomaye jomay fay limu wuti won gambi wuti won Guinée Bissau bés du mu leen ko jappalé si live ak ci Bassirou jomay fay progrès bu muy def si mas ñi di wax si mas di jëfur est-ce que deg ngeen ma wax ci duma ci wax tank que jomay fay Faye ba def capital économique duma ci wax basu mo basu mo mbare duma ci wax de du ma ci wax ba Bassirou Diomaye fay ak Sonko li ñuy pare def Casamance ñi gayen Casamance sera l'Eldorado Casamance mooy nekk ville boo xam ñëpp fay ñëw vacances Casamance mooy nekk la ville ouverte du Sénégal Casamance capitale ku fa ñëw di nga lekk di nga naan di nga lekk buuj di nga lekk crevette nuuru buuj ma ñàkk sama ndey Casamance bu gars yi paree parce que Gambie rek commencé nañ teg jalon yi kilifa yi maa woo nañ na pour commencer négociation yi commencer régler àll bi délimitation yep dañ koy génnee usine bant yek yooyu yep Gambien yi jóg nañ ci y a usine bant bu chinois déjà na ci tay du tay tay rectification la won cliché, lance, Liberté 5 <laughs> Liberté 6 <laughs> man je suis un grand monsieur buma damay taxaw ne y a point final non FMI buñ ci waxagum pare gu négociation FMI ñi Sénégal ba bàyyi leen ak Ousmane Sonko rek mu géré maanaam mi kañ du lépp la ñu mën établir su ko na nga ko abidjé Iba Famane Dia mais c'est un grand gouvernement qu'on a barki sëñ Touba un gouvernement décomplexé kuy complexé bokkutoo ci combat bi sors de la